et puis France sax soldats yi fa faatu yooyu ñu ne juróom juróom-benn rek la reconnaître et pourquoi France là la ñu et pourquoi je pense que Sonko li mu def remonter les bretelles c'est une bonne chose parce que nous des caare au 44 mais mm-hmm. officiellement ils disent que c'est 35. Mm-hmm. mais ñu dee ñëpp foofu kenn xamul lan la. Mm-hmm. je pense qu'à partir de au 44 bi le 80e anniversaire nous devons repartir sur de nouvelles bases avec ces Français là. parce que yabeel weesuwul loolu jël suñuy doom téere leen ay ban ah parce que dañ doon laaj seen ay émoluments. Mhm. ba pare heure bu ngeen waree def li ngeen war a def parce que loolu mënoo leen fay dara dañ leen xeexal des fa ñëwaat ñibbisi fii. ba dem dem taseeg seen ay famille ngeen tiire leen ay bal ñu dee. te ba tey xamuñu ci yan condition lañ. xamuñu ci yan condition lim exact xamuñu sax lim exact wax rek lañ mën a jàpp. donc Sonko donte nag ñenn ñi nee France moom xam na ci li nga xamante ni moom lu wóolu. ben oui parce que gis nga ba léegi déclassifié wuñu les dossiers parce que xam nañu lu fa am.

il va falloir que français bi jël seen courage à demain. mains ñu xam tort bi nga xamante ne nañ ko les africains c'est pas seulement les sénégalais tirailleurs sénégalais mais c'était des africains fayuñu naar ba xoromam léegi nag ful la nag yaa koy mooy jaay Dakar à partir de là je pense que jomaay yii muy dem yëpp ay démardement débarquement de Normandie yooyu muy dem ak yooyu yëpp bu ca demee Ne poser waat le débat avec franchise bu ko defee nag ñi tëdd noppalu seen njaboot yi fi nekk

Nous ak moom noonu la amee ñu nga xamante ne ànduñu mhm. euh, professeur euh, Mbaye Cham. Mhm. Néna, Ousmane Sonko euh, dafa faut a xam l'affaire Thian 44 est un crime contre l'humanité et les blancs ne vont jamais l'accepter mu les historiens aussi ont déjà clôturé le débat donc Dal, loolu lay kàddu yooyu la sur Imedia, euh, niki Altiné, biñ ko invité foofu like ko ci li nga xamanteni modi moo sorti Ousmane Sonko mon ne l'historien qui a été très fermé, n'est pas du tout à avec la méthode employée par le premier ministre pour euh, pour répondre à la France maanaam Dal, ils sont Sonko répondre très France mom Serigne Mbaye Thiam àndu ci. man d'accord mak Serigne Mbaye Thiam même si je le respecte beaucoup di ko nuyu néna la li Sonko wax nañ tegu ci yoon boobu. ndax daal moom nee mbir la bu nga xamanteni touba euh, tubaab bi ñu war clore le débat. pourquoi ta japp ni tamit historien tamit clôturer le débat li nga.

chaque année on on dit la même chose ñaata ñoo dee lu France deful li wa France deful li lutax France du def une bonne fois pour toutes qu'on passe à autre chose. Mhm. loolu la ñëpp di xaar. alors ku ak sa xalaat nak ku melni ni Bougane tamit Binta Diallo moom it ak Sonko mom néna na Ousmane Sonko dafa wara d'abord leeral li nga xamante mom modi 86 martyrs yi nga xamante en 2021 ba 2024 boobu batay tey euh, xamuñu li nga xamante mom mo moo fat ci manifestation yi fi amone euh, mars 2021 ak juin néna na tamit nañu léral ci li nga xamante moom moo di le protocole avec Macky Sall ndax Ousmane Sonko tamit neen dafa trahir li xamante ni moom moo di le panafrique panafricanisme nee na ko amuloo pour di ñu wax dara guddi ñu toll nii parce que yow euh, la nga wa diggee woon ak ndaw yi sax benn defoo ko euh, ci wàllu également li nga xamante ni moo di panafricanisme tamit la nga ca waxoon tamit ak ña nga ca indi woon ay digge ñooñ tamit dafa mel ni respecté woo ko ba noppi tamit nee na na expliquer li nga xamante ni moom moo di le deal de l'amnistie entre moom ak ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall sans oublier li nga xamante ni moo di 86 jeunes sénégalais yi nga xamante ni euh, génn nañu àdduna loolu daal la la Bougane Gueye wax dem ba ci biir sax daal ci évoqué li nga xamanteni ni modi euh affaireu euh, CPI japp nañ da Ousmane Sonko bientôt dinañ ko traité traîner mom ci boppam fofé ci CPI. pourquoi. pour li fi amone faatu yi fi amone néna finalement mom la ko attribué. 86 personnes on avait dit que c'était Macky Sall non 2021 ba 2024. ba foo Macky Sall lañu ñu hmm. bon je trouve que Bougane est dans son rôle il est en train de s'opposer après élection yi ba léegi déggatuñu ñu won ben opposant maintenant il est il s'est positionné. parce que là vous doon réew mi dafa nek dal un état de droit. Ousmane Sonko waroon nagn ko waroon nagn ko traîner devant la CPI. Ah, je sais pas pourquoi il a dit ça mais waa xam il est en train de s'opposer parce que gis nañu légui que mi ngi def face quand même. et le seul opposant bi nga xamante genn na après la la présidentielle du defante ak ñom il va faire du son comme il est en train de faire du son faites comme la France. Reconnaissez votre responsabilité et celle des dignitaires de l'ancien régime sur la mort de 86 jeunes Sénégalais dont le sang a arrosé le tapis. Vous ayez un conduit au palais. Quand kay mom danaka japp na ni 86 personnes qui gëna. Mom la wax motax bientôt il va répondre devant la CPI. Ça ce sont les propos qui n'engagent que Bougan guédani mm-hmm. mais je pense qu'il est dans son rôle, qu'il est en train de s'opposer mm. et que euh, entière il va prendre euh, ses propos ne vont euh, n'engagent que lui. Mais sortez maintenant noo ko gisee Binta. moom la wax il est en train de se positionner moom du c'est-à-dire lu ñu wax bu ñu nee ñoxoon jaay ñor na ak ñorul sax mu génn ni ñorul. ah oui mais xam nga c'est sa stratégie politique à lui opposant là même si l'autre dit que il n'est pas opposant il fait c'est un opposant euh, le directeur de de la caisse de consignation. Néna na bi muy wax waxul won Bougane. non je pense que Walidou Diouf Walidou moo Waly Diouf Bodian oui nee na opposant du milliardaire. du milliardaire waaw. ouais mais ça veut dire que Bougane est en train de faire mal xam nga bu fekkente ne yow li ngay wax ñorul kenn kenn du la tontu je pense qu'il est en train de faire mal Bougane parce que boobu ba léegi mi ngi génn mi ngi leen di interpeller sur bien des questions te tontuwuñu ci ñoom ils sont dans la réaction fekkente ne opposant da ngeen ne nañu opposer façon républicaine su poser des questions yoo xamante ne am na solo ngeen tontu ko politiquement parce que ba il est moom ay question moom daf leen di affronter politiquement donc il va pas falloir ñu ñu waxuma ak yow waxal. non parce que limu wax ni ci ci communiqué bi yamatul ci wax rek dafa dem ba c'est ça. oui dem na ba gis nga ko. nga ah voilà. oui que yow légui nga dem CPI parce que nit sen tour ci yow la. c'est ce qu'il a dit non. Mhm. mais c'est assez grave. bu ne Bougane am ci ay preuve mom tam na ko su amul preuve il faut que ñu xam la bi parce que nous bo ñu est-ce que ces morts vont passer par perte et profit Dougan Yegon le protocole, c'est pas le protocole du Cap Manuel, mais c'est le protocole de Teru Sogi. Il a interpellé euh, le, premier, le, président, le Premier ministre et Macky Sall pour nous l'air ci lan lañ ci wax amnistie bi fa la jógee dil sur le dos des sénégalais interpellé il est dans son rôle et puis il ngi xaar ay réponses mais pas ay contre-attaques du genre euh, des saaga nit ki des choses comme ça non opposition bu génnee attaqué le frontalement jël ay dossier teg ko ci sa ta ci taabalam ne leen ko def mais il réplique loolu n'y a xaar réponse mais sinon fuñu ñu jëm mhm. moom Sonko il était dans ça non mhm. il a il était en train il était dans les accusations li tax demul élection présidentielle la du diffamation. mais nee nañu li Sonko doon def lolu Sonko rek la jege et que Bougane quelque part. day Sonko Sonko lo waaw mais su ko neexee c'est sa stratégie politique lu muy so Sonko jigu parce que Sonko mi ngi nii tey jii kan mo tok place am tay di lan kan mo tek place am ba yakarne photo fauteuil bi mu toog sax da koy chauffer c'est C'est le président de la République non parce que Sonko il était dans les accusations même si les gens disent que non dañ ko don dañ ko don xex parce que mon amoon na ay preuves donc pour dire que Sénégal lu la wax euh, quand tu es de l'autre côté mais quand maintenant tu arrives euh, si fi nga bëgg tok alors kenen amul droit wax ko c'est donc que la on war a dem léegi wala ci loolu lañ politique bi foofu lañ Il y a continuer yaa ma wax waxuma la yaa def lii waxuma la a def lii arrêt on on t'envoie en prison alors moo fait un kon dañ ko bëgg mais dans quel pays sommes-nous Penda Nous, dañu bëgg nag gis nag le bout du tunnel hein? il y a deux jours ton chef était assis comme un gamin en classe de CP aux côtés de Macron et aujourd'hui comme le ridicule ne tue pas toujours au sale jeu de souverainiste en carton <laughs> Bougane daal ay moowam yi saf la leen di bombarder léegi ñoom la ñuy déglu nag te moom moom euh, lu ma si jaaxal moom Sonko la attaqué frontalement. te ku xam Sonko nag. Bougane tamit. ah mais Bougane tamit euh, moom tam temps yi moom ñeme na ñeme na affaire yi de. ah Bougane kay ñeme leen. xam naa na lu mu euh, leen ma di wax nii moom ñeme. papa yóbbu ma ci yoon ma indi samay preuve. ci nguuru Macky Sall daawoon na attaqué Macky Sall mais. ni bi yoon kay. gisuñu ko woon face à face la Sonko Bougane. pourquoi moo leen ñeme nii. ah da xamal xëy na xam nga si ñoom la nekkoon aussi xamante nañ di Bougane il li muy wax ñoom dafa mel accordé luñ ci accordé accordé ah si ko xeeb de bul ko xeeb de nañ ko importance de te la prochaine sortie de de Sonko yoo xam nga ko temps dañ ko gaayee ko acculé mu noppi yaa gën a xam ne dina dina dina attaqué Bougane moom temps yi dafa noppi sax waaw ah, parce que lan moo waaw mais parce que sortie yi mu def yëpp dafa dafa ay kii bourde gars ne ko toogal premier ministre bu or moomul wax ngay tok bo amé loy wax rek nga genn wax ko pour sénégalais yi. la mais est-ce que amoon nañ tontu vu que ni mom bañ na ko ba ci communiquer bi mom ci tweet bi mom Sonko daf ci signé Ousmane Sonko euh, euh, président du parti Pastef. mais est-ce que mën na am légui mën nga ko départir le président du Pastef et le premier ministre. loolu mënu mënu mënu ko départir même bu mu démé université il avait dit ça avec Mélenchon que c'est le c'est le président du parti Pastef qui parle mais mujj gi après fan lañ ko ko dugalal ci premier ministre il porte le manteau du premier ministre moo tax lu muy wax daf ko war calculer waat. mais si mun nañ ko ba tey parce que c'est pas pour rien que moom ba mu defee tuitam dafa dem ba ci suuf mu signé ci Ousmane Sonko président du parti Pastef. mais il est le premier ministre du Sénégal aussi propos yu muy wax day engagé premier ministre du Sénégal moo tax lu muy wax da koy xoolaat da koy calculer waat bu baax parce que propos yoo def da lay en yow tey jii boo nee man Penda Penda journaliste mun nga def burtu boo xamante ne boo ñu Sénégal set ngay liggéeyee di ngay def ni sans engage Sénégal 7 parce que fi nga nek donc lu muy wax daf ko wara mom moom parce que les premiers ministre du Sénégal. dañuy gis sax souvent ay journalistes des seen ay live wax lu nga xamanteni ñom la ñom la ñom la concerné mais bu amé bourdou bu paré paree dañ ciy boole li nga xamanteni mom modi chaîne bañu nek mais c'est ça ça engage la boîte fi fo nek rek. loo wax day engager loolu même so ma nee tey jii Penda nekuma dama génn fay def sama live man Penda Sénégal journaliste maay wax mais dañ naan kii pende bu Sénégal set la. Mhm. donc say propos da koy xoolaat. d'accord Binta